madame la ministre may ñëw nag ba tey rek ci bàjjen euh, problème mu bàjjenu gox yi xam nga ñun bàjjenu gox yi wax dëgg yàlla Macky bi mu baaree bàjjenu gox yi daf leen a waxoon ne dina leen di jox cinquante mille par mois léegi nag am benn partenaire boo xam ne moom daf ni woon mooy jël vingt cinq pour cent yi mooy mooy jël cinquante pour cent yi léegi nag partenaire bi dugal na vingt cinq euh, dugal na euh, vingt cinq mille léegi nag vingt cinq mille yi nga xam ne moom la état bi war a dugal moo dugagul ba léegi te par te partenaire bi avril mais juin la joxe muy soixante quinze mille kon ba léegi yaakaar naa ne affaire boobu saafa euh, des na léegi nag au niveau des postes de santé de Guédiawaye pour ñu améliorer les plateaux médicaux parce que ñun déjà am na nañu structure yi waaye li des mooy yokk euh, personnel bi yokk itam plateau médical bi ba mu gën a élevé parce que xam nañ ni poste de santé yi euh, euh, kii la trans euh, dañ ko transféré kii hmm, communes yi mais communes yi amuñu doole bi nga xam ne vraiment moom lañ ci war a def madame la ministre mu am loo xam ne itam dama bëgg nga xam ko bu baax président Macky Sall itam xam ko am na ñu bari ñoo xam ne seen carte yi ñu ngi hôpital tey jii bu élection yi ñëwee du ñu mën a wote ñu baree bari nag ndax dan dandul mën a fay ñu téye fa seen carte d'identité léegi nag di xaar nga fay te ki nga xam ne amul ba dem joxe carte d'identité am yaakaar naa ni diggante bi dina fi am kon loolu itam bëgg naa ngeen jàpp may laajte nag hôpital Dalal Jàmm xam nga hôpital Dalal Jàmm sous terrain bi moo ëpp li ci kaw fi mu ne fi nii fajoo te itam dafa am matériel yoo xam ni booba ba léegi ñu ngi ko fa ko li teg ko mais matériel yooyu lan la est-ce que dañoo amul ñu ko mën a liggéeye wala lan la demee loolu bëgg naa koo xam matériel yi ci sous terrain bi lan la di wax itam ngeen yokk plateau médicalu dalal jàmm parce que dalal jàmm bu fekkee ni li mu war a am yépp am na ko ci ñuy faj ci ay garab ci ay rajo ay leneen lu si mën a doon li jëm ci santé yaakaar naa ne bu ngeen ko fa defee ah nit ñi ni ñuy jooyee santé ci Sénégal dina wàññeeku li nu wax nag fay bu cher bi wax dëgg yàlla euh, réew mi comme te liggéey amul xale yaa ngi tàq di dem nit ñi soo feebaree boo demee lin lay laaj doo ko mën a am loolu itam war ngeen cee bàyyi xel bu baax a baax. je merci remercie chers collègues.